waa Sénégal TV ñu ngi taxaw kañ wax ko Doudou ah euh, Doudou Seydou Adja ñu ngi ko fekk fii si répétition Ngaaka Blindé Doudou ñu ngi nuyu. waaw maa leen di fay di nuyu mbokku nit yi seetaan Sénégal yëpp di leen wax waaw Doudou la maa ngi nii. Euh, sa présidente fii tey waaw l' du mois de mars le 11 Ngaaka Blindé ñëpp xam nañu day def show boo xam ne dafa nar extraordinaire et hormis sama artiste la préféré et aussi c'est mon ami c'est mon grand frère il représente beaucoup de choses pour moi donc loolu moo tax tey jii ma ñëw fi waaw. Euh, seen diggante kon nekkul artiste nekkul célébrité célébrité dafa am leneen ah, leneen si rox wala. non non non non non suñu suñu sama sama rapport ak Ngaaka ëpp na loolu ko quand même ëpp na entre artiste artiste entre mag ak rakk la xam nga artiste artiste mais bon artiste buy conseiller rakkam aussi. donc euh, ak estime bi nga xam ne man am naa ko envers sa personne quoi donc je pense que lu ñu lu ñu lié lu gën a yaatu par rapport ak am na jàmm ak yeneen artistes yëpp mais avec Ngaaka c'est quand même un peu spécial. donc c'est événement bi waaw yow fekk nga ma ci répétition yi le gis nga moo gis nga gis nga gis nga répétition yi nu mu mel. donc len rek laay wax nit du ji kenn du jiitu sa bopp fi nga jëm hmm. bu leen ko kenn nettalee. dina tooy waar trop. mais Esplanade Cissé bi gars yi ñu bëri dañu naan affaire bi défi la est ce que dina relever défi bi est que dina ko feesal boobu. waaw mais on parle de Ngaaka Blindé la. si Ngaaka Blindé la ñuy wax waxuñu waxuñu si keneen quoi Ngaaka Blindé la ñuy wax et tey jii nii loolu maanaam di ko poser sax est ce que c' est une question sérieuse quoi. Hmm. parce que Ngaaka Blindé avec tout ce qu'il a fait pour le rap Galsen bu feesalul Esplanade Cissé ñoom ñoo war a mere seen bopp amul lu ñuy wax Ngaaka parce que def na ñoom ñoo si des ñoom ñoo war a ñëw. parce que booy bi mi ngi job ñëpp ngi gis quoi comprendre nga donc tey jii am na ay jéego yoo xam ne bu ko doxee bu wootee nit ñi muy ñu def lu dul ñëw man de bu ma ne nit ñi sañ nañ bañ a ñëw man de xalaatuma ko man. Euh, voilà ñoo si Doudou en tant qu'acteur mais Doudou euh, foo réete euh, gisatuñ la si benn série léegi. ah non da nga naan seetaanatoo benn série seetaanoo fake life. ah fake life <laughs> ok. Ah. <laughs> non mais bon parce que lépp loo gis ay négociation la lépp loo gis. temps la def naa six ans Marodi kenn réclamé wu ma Evenprod juste à Evenprod maa ngi liggéey ak ñoom si le moment sera ma ñoo ma dellu Marodi dina am su ma waree dem feneen fu dul Marodi naa fa dem bu ma waree def leneen lu dul lii dinaa ko defi man jeune la ce que je veux c'est gagner ma vie quoi. mais lan moo ñu ngi may woo Marodi démb rek déggante nañ waaw Marodi c'est ma famille ñooñu. buñ naan buñ naan. lu tax woowatuñ la ma si série gisaguñu la si série waaw da nga naan waaw lan moo tax gisaguñu ma si série yi mais bon àdduna loo gis temps la ko lu jot dafay yomb waaw ñu ngi amul benn ñaawoo sama diggante ak Marodi sincèrement bu dee mën na dalal xelu nit ñi li may wax ni ñu gëm ko mu jeex amul dara lu ñaaw sama diggante ak Marodi heure bu yàlla defee ñu war a liggéeyaat dinañ liggéeyaat quoi. man loolu mooy sama liggéey quoi waaw. voilà weer koor gi ak ñu est-ce que mën nañoo xaal euh, série yi si la baax na on sait jamais. mais on sait jamais. il faut s'attendre à tout. waaw. Hmm. Euh, voilà sànq yaa ngi tudd léegi Fake Life ma yaa ngi woon si série bi loolu ñu mën a wax Fake Life objectif film bi comme ni ko seetaan ñëpp xam nañ ni c'est une série qui parle réellement réellement de la jeunesse sénégalaise am des tares qui sont dans les réseaux sociaux problèmes yu muy andi xam nga. donc euh, jeunesse bi je pense que ñi ko seetaan jëlee nañ si leçon aussi parents yi ñi nga xamul woon les réseaux sociaux mun a def léegi comprendre nañ lan moo tax ñu war a jege xale yi ak seen i téléphone et aussi jàngale nañ lu bëri lu bëri si fekk laa daal c'est une série pleine pleine de leçons et man daal j'ai bien aimé faire partie dans cette série. Euh, euh, yow kon réseaux sociaux di ngeen mën a wax réseaux sociaux yi dafa am ay kii inconvénients. waaw yàq jeunesse mais seen chaîne YouTube bi am na inconvénient lépp am inconvénient si àdduna lekk bu bëri sax inconvénient lay indi comprendre nga donc en fait dans la vie il faut savoir doser quoi il faut que li ngay def nga xam ni nga koy tollalee nga xam ni fii foo dem am na limite quoi et donc faut pas nga nekk ci réseau yi loo gis gëm loo dégg topp comprendre nga il faut savoir doser et que si réseau yi am na lu baax am na lu bon c'est à toi de faire ton euh, choix. li ngeen di dund. bokkul carrément. waaw man de vraiment li may dund carrément man duma ko étaler sur la plage. Hmm. du ko du ma ko jël nii lu may dund carrément. Hmm. ma étaler ko si réseau yi wax fa dëgg na yàlla quoi parce que dafa am li nga xam ne pour nit ñi la am loo xam ne pour pour man la am loo xam ne ko bokk lu ñu bokk nag naa ko joxe. non exemple laa joxe rek quoi wax ma parce que xaw ma non mais mais tey. Ah. tey man je pense pas que. lan nga bëgg nit ñi wane fi ñuy tëdd ni ñuy tëddee li ñuy lekk li ñuy sangoo. loo bëgg luxe bi quoi luxe bu gars yi di wane si non man moom mais ku nekk ku nekk ak yow li nga bëgg am na ñoo xam ne dañuy romb dem benn géeju géeju waaye photo wu fa toog si car rapide photo mais lan la ku ku mu neex def lu la neex ku nekk daal sa choix artistique yow yaay xool fan nga bëgg yóbbu sa direction artistique yow nga xool bu nekkee si luxe nga yëg sa bopp hmm. mais tu le fais boo bëggee wane lu naturel ci la fay. ok dernière question mais projet yi lan la la moo nekk say kanam. beaucoup de projets. comme ban. bëri na rek. Ah. <laughs> gars yi moom ne leen moom nañ xaar bëri na trop. ah, ah dina métti de 2023 bi dina neex trop. ok ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa leen di fay gars